n'êtes pas en Europe, ni en Amérique, ni à Dakar, mais vous êtes bel et bien dans la ville sainte de Touba. waaw yéen a ngi biir Touba ci boutique Total Kër Khadim bi nekk ci route de Mbacké ci wetu banque CBAO bi waaw dañoo élargir suñu boutique ba mu gën a ngan ba noppi it di jaay bépp produit charcuterie ak poissonnerie ñu yokk boutique ba daal di fay def alimentation daal di fay def alimentaire def fa hygiène def fa cosmétique def fa vaisselle def fa habillement def fa divers ak lépp yemul foofu dafa am gaamu soow soow piir soow mu neex boo xam ni nag ci ay siwo la nekk soow mi mi ngi tudd poroxaan soow boutique Kër Xaadim am nañ restaurant bu ñu tuddee El Hadj Dame si la ñu koy wax El Dasi restaurant boo xam ni décor ba boo ko gisee macha allah da ngay defe ne yaa ngi Amérique wala yaa ngi France wala yaa ngi Ndakaaru déedéet yaa ngi fii ci tuubaa am décor am salle VIP bu baax. ñu climatiser ko ba mu sedd waaw teel leen a réservé pour seen i conférence seen i réunion seen cérémonie seen i pause café seen i ndaje lu ngeen te soxla rek équipe bu mucc ayib boo xam ni ñëpp liggéey rek la ñuy def ña nga foofu di leen xaar terrasse ba am na pâtisserie am na ñu traiteur woo ñu ci 33 976 03 39 77 899 45 45 wala 76 354 44 44 wala 77 583 17 17 boutique Kër Xaar

ci la xewal yi yokkoo shahru ramadan ramadan ya karim ramadan ya habib ya habib ramadan moo ëmb leen moo gën ci weer yow na yaatalal sa xol sàkku yërmande ngelaw waay bu ci mooy yàlla tuubal jéggalul dellul ci yàlla lu mun ci lu baax ci tay mengook safaan ba nanga ko baay loo ci jëkka lu mu baal ci la ngëneel yi tàbbee ci la xewal yi yokkoo shahru ramadan ya karim ramadan ya habib yaatalal sa xol sàkku yërmande ilaha illallah waay illallah damaa wër ba sonn laay waay sama ko nijaay këram gi rafet na li comme kër kër Marème Faye Sall ga leer na ma nit sama tool yi mbokk saa yaay ci puut moom la jaay ci tabax kër ni mu triant sama yaay bu koy woo ko jël du ko def dara salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum kooku waaw. loolu. woor si woor si. doo fi woore. foo ko teg moom fii doo fi woore. lu tax li ma daj ta ci kër gi daaw. waaw doo fi woore. jógal jógal génn doo fi woore. yow fii doo fi woore. jógal jógal génn kër gi. jógal ay waay yow ma dem ma ne yàcc kenn ma yow. da ngay génn kër gi da nga tooy de. jógal da ngay génn kër da nga tooy de. yàlla sagal dama foofu. yëkkati na di nga jóg de yow xam nga doo gàddu ñëpp dara ah, xam nga ni boo doon doon doo ko jaral de sar ku la jëndi dalan la jaar waaye doo fi war de xar mu puus ko mu puus eh, defal bëri yow mi waaw kii du ma ko fa barki sëñ bi doo fi woore fii kay bañu ma ci dara doo li ma daj daaw du ma ko daj rek doo fi woore doo fi woore pare nga pare doo fi pare ma yëkkati ma yëkkati ma yëkkati ma yëkkati ma yëkkati ma waay doo fi waree. waaw nii fi waree. ah yéen la sax. doo fi waree waaye yow de yow Tafa xanaa da ngaa bëgg a rey kii. waaye yow Baara lii lan moo ko fi jar. du fi waree de. eh Tafa. yow Tafa yéen xanaa a rey da nga ma a rey Tafa. du fi waree yow ana gën a xeetu. dama dama ñëw nuyoo. doo fi woore ma doo fi woore. doo fi woore boo jaru xeex kii war nga koo yërëm boo gisee ni mu mel rek nga war a am yërmande. sa nijaay moog sa yaay bokk ndey ak baay kii ab sàmm kuraa ba bu ñu toppoon ca Kajoor rek. doo fi woore doo fi woore doo la dañoo am ay dëkkandoo yi fi ne weeru koor bi dafa métti ak dëkkandoo dafa am solo. rawatina nag weeru koor bi xam nga lu ma bëgg jëlal sa saag bi nga dugg si biir fii sa. du fi wooree fii du fi dugg. su ma noppee bu dee yàgg de jukkoog borom pax mi ngi ci buntu bi dama xaar bu may yenn mooy finance ayca si biir man sa umpaañ laa war nga ma xàmmee bu baax. Ah, yaay borom cër bu neex nga. te eh, laa jëloon mbaam bu góor. du fi waare du fi waare. ay waay waay du fi waare. demal dugalal ma waare sa biir. du fi waare. ay waay. rey leen seen bopp doo fi woore doo fi woore doo bay doo fi woore bay ba doo fi woore bay ba doo fi woore bay ba doo fi woore doo fi woore doo fi woore def nga lu ñaaw. nu ma defee lu ñaaw sama bañ. yow naka ngay ñëwee si kër di xeex a ko xuloo. yow kii nijaayam ak sama nijaay ju ñu la ànd nijaayam ab dof la ñu jël dof di ko teg ci bunt bi. waaye nga. xanaa nit lu mu dof dof bu gisee xeetu borom kër gi war ko bàyyi mu naan dof woo rek. da ngay réglé waaye loolu le bu jeexee dama lay laaj an sa yaay. sama ñoom yaay nga fa. na mën naa ko moo la raw de. waaw ana waaw ana Moustapha ne soo ko tuddee rek sama xol bi day tooy. ku ragal yàlla. wallaahi ku gëm sunu borom tabaaraka wa taala sunu borom moo wax ni delluwaay leen ci man te gëm ma mataa doon nit koo xam ne du wax mukk dara wa maa sayyidnaa illaa bimaa alimnaa rek di dox ci dëgg daaw de bi ma waaree. fanweeri rakka ñett laa daan naan ah. mataa ku gëm yàlla. ah gëm na yàlla moom te am na diine man noonu ma si gën a يا حبيب